أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ñu ngi dellu sant suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi koy baax di ko kan ci turam seel yi ak melokaan yi kaw yi ñu ngi julli di seen ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan moom ci xéewal moom ak i saxaabam ak képp ko fas yéene toog ci yoonu bu bis pénc xam naa tey comme ni ñu ko waxee woon maa ngi fas yéene amal benn muhaadara ñun si intégrité saa fi ñu koy defal moom saa si bi ñoom ñaan suñu borom tontara dëgëral ko ak kàttanal ko ba thème bu ñu ko jox mooy relation bu ñu war a am ak suñu diggante ak suñu waajur li li may noonu suñu borom tontara mu ko kàttan bu mën ko jottale ci melokaan wala ci anam bu mu gën a rafetee ñun tamit suñ ko jigéen suñu borom tontara ñu ñu ay ceeb yu mën a jëfee kon xam naa dañu ko jël dañuy jox mbokk bi rek mu tàmbali.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والصلاه والسلام على رسول الله الذي بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا بلغ الرساله وعد الامانه ونصح الامه وما هو الظلمه وكسف الغمه عن هذه الامه وتركنا على مهجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi jéem fàttalante ak yéen ci tomb bi nga xam ne dafa bokk ci tomb yi ndax farata yàlla la waaye ndénkaaneem la mooy lan diggante nit ak ay woy juróom ndénkaane gënta màgg ndénkaane yàlla soo doon jël misaal ci benn doomu aadama bu la dénk dara ne la lii dama bëgg nga dencal ma ko walla dama bëgg nga sàmmal ma ko pour nga xam loolu li ci li nga ci war a def mooy foog nga xam ki la dénk kan la soo xamee ki la dénk kan la ban daraja la am ban maqaala maqaama la am ci ngay xam lin la dénk noo ko war a sàmmee noo ko war a toppatoowee noo ko war a fonkee borom bi moo ne wa wasayna al insaana bi walidayhi man yàlla maa dénk nit ñaari way juram kon buur bu toll na yàlla bu la dénkee sa ñaari way jur yow min dénk war ngaa xam lin la dénk yow mi nu dénk war ngaa xam liñ la dénk lan la wallahi mbokk yi bu fekkonte ni sax ñaari way jur du ndénkaante yàlla doomu aadama war na fonk ñaari way juram même bu fekkoon ne du ndénkaane yàlla ndax tey boo nekkee dara wala nga tekki dara ñoom ñaar ñoo tax même bu doon du sax du yàlla nit dafa war a fonk ñaari way juróom dafa am benn cheikh jamono yële passé ci Arabie Saoudite dañ ko sant benn conférence mu ñëw toog war a def conférence bi comme ni ma toogee bim ne aouzu billahi min alshaytan rajim bismillahi arrahmani arrahim inna alhamdulillah rek téléphone am daal di sonné mu jël daan ne naam naam daal di coupé daa ne gars yi maa ngi dem wuy ji sama yaay conférence bi du ma ko mën a def mu jóg dem ñu ne conférence boobu moo gën a rëy moo gën a màgg ci li cheikh bi mos a def ci ay conférence dars yi mos a jàng lépp boobu moo gën a jàll est-ce que ñun kenn ci ñun ku toog fii loolu di nga ko def malaace est-ce que ñun laa ñun ñu toog fii góor ak jigéen kenn ci ñun ku toog fii di nga nekk ci programme bu mel noonu sa téléphone sonné sa yaay na léegi dama la soxla nga dagg ko wuy ji sa yaay ma Cheikh ba dafa jàngale wuy jur nu mu toll ci doom xoolal conférence bi li am solo def ko dagg ne waa conférence bi sama yaay moo ma woo dem wuy ji yaayam moo tax ñun lu ndaw la ñuy foowee borom bi subhanahu wa taala moo wax ci quran mu ne ginnaaw man yàlla bu ma wéyee wa qada rabbuka mu ne man yàlla maa dogal maa atte allah taabudu illa iya bu ñu jaamu kenn ku dul moom yàlla yàlla ñaari way jur moom la sësale ak boppam yàlla dafa jël ñaari wayjur sësale ko ci boppam wa qada rabbuka an la taabudu illa iya yàlla moo atte ne kenn du jaamu kenn ku dul moom lan la ci teg wa bil walidayni ihsanan bayna tawxid wal ihsan diggante rafetal wéetal yàlla am tawxid ak rafetal ci sa ñaari wayjur maanaam kon ginnaaw tawxid lu ci tegu mooy sa ñaari wayjur soo amee tawxid te rafetaloo sa ñaari wayjur lu muy tekki soo rafetal sa ñaari wayjur amoo tawxid c'est-à-dire que defoo ci benn bis boo amee tawxid di nga respecté sa ñaari wayjur bis boo respecté sa ñaari wayjur dina la yóbbu ci nga am tawxid looloo tax mbokk yi bokk na ci li ñu gën a réere ñun ndaw yi mooy ban taxawaay lañ war a taxaw sunu digganteeg sunu ñaari wayjur ban taxawaay lañ war a am ci ñoom warul lekk lu ndaw lu màgg la ci kanamu yàlla tabaraka wa taala parce que yàlla moo ko santaane lu yàlla santaane nag doomu aadama daf ci war taxaw bu bañ a alku moo tax yàlla bi mu waxee ñaari wayjur rek lan la ci teg mu ne ihsaanan rafetal ci ñoom kañ imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma mu ne rawatina nag période bu ñu demee ba mag léeg-léeg kilifa yi bu ñu magee dañuy naqaree gérer lu tax parce que dañuy delluwaat aasu ñàkk xel sunu borom moo ne man maa leen bind def leen ay xale yu ndaw après ma def leen ay waxambaane après ma def leen ay mag après min baadi quwa mu ne daaf xale bi nga nekkee liir sa lépp lan la ci jàppale noonu yàlla defee waa ji mu mag nit ki mu mag noonu la ko yàlla delloo ba dañ koy jàppale waat bu màggetee ñu lay jàppale waat dama liir tey léegi léegi léegi léegi sama page Facebook benn cheikh buy nàmpal yaayam bi ñuy commenté am nañu commenté ne nàmpal na ko bi mu nekkee xale moom mu nàmpal ko bi mu magee maanaam mère bi dafa mënatul dara ba léegi dañ koy nàmpal waaye cheikh bi wala muy xëy dem dina defar nàmpal yaay ji ba yaay ji suur mu doog a xëy ñu ne yaay ji nàmpal na ko bi cheikh bi nekkee liir cheikh bi bi mu bi yaay ji màggetee cheikh bi nàmpal ko bi waron bi lañu wone mu sax ko ci gémmiñ ki mu koy nàmpal ngir rek am tiyaaba ngir la digg jàngale borom bi tabaraka wa taala yàlla mu ne bu ñu demee ba màgget ñoom ñaar kenn ci ñoom wala ñoom ñaar benn baat bi gën a tuuti muy baatu uf fala taqul lahuma uffin baatu uf baatu o baatu góo baat yooyu tey ni mu bëri ci suñu biir kër yi ñu cax loxo kii patu sa digganteeg say waajur ci góor ak jigéen ak bëri tey ci suñu biir kër yi yàlla mu ne wala tanharhuma bu leen gëdd bul arsale bul yuuxu wa qul lahuma qawlan karima wax leen wax ju nooy yamu ci de mu ne wax fit lahuma janaha zilli min arrahma wàccal say mbagg wàccal say mbagg amoo droit di wax ak moom sa papa taxaw nga taxaw warul taxaw nga taxaw waroo wax ak moom comme nit ak moroomam waroo ko nuyu comme nit ak moroomam yàlla moo ko wax nee na wàcceel say mbagg wàcceel ci suuf loolu nag tey buñ koy gëstu ci sabab yi ci ndaw yi dañuy fekk muy lu néew lu néew lu néew lu néew ay mbokk dañuy nettali ñu ne ginnaaw raay dafa am benn mbokk boo xam ne instant bu nekk bu daan wax ak papaam danaan papaam saahibu bidaa borom bidaa bi yéen ñëpp bi ay bidaa maan ngeen da ngeen de ay musrikin ngeen da ngeen dem safara chaque instant loolu lay wax papaam benn jour comme day wax papa ji ahlu bidaa benn jour mu biddanti fajar demul jàkk papa ji dem julli ji fajar ba ñëw daal di koy fëgg nekk ahlu nelaw jógal ahlu biddanti ahlu biddanti ahlu biddanti jógal julli waaye yooyu warul warul diggante ndey ak doom même sa papa bu dee mushrik même bu dee day dund bidaa même bu nekkee dafa dafa dafa yàlla am na lum la jàngal lan la la jàngal mooy wasaayibhuma fi dunya wasaayibhuma fi dunya maaruf baatu maaruf lu muy tekki lépp luy lu baax def ko sa diggante ak sa papa donte nuy jullit maaruf baat bi nañ seet lu muy teeg bu ñu jógee kalimatu maaruf luxatan wa istilaahan ngeen xool baat bi lu muy teeg muu bi rek sens bi waaye après lan la ëmb ci la ñuy xam kon lan moon war sunu digganteeg sunu wéyjur yi borom bi subhanahu wa taala mu ne wàcceel say mbagg ci ñoom wax leen wax ju nooy bu leen gëdd waaye sax na nga na nga leen di ñaanal yàlla waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira yàlla yàlla na nga leen yërëm comme niñ ma yaree ma nekk xale doomu adama mun ta fay way juróom mun ta fay ndeyam ak baayam munoo ko munoo ko su fekkoon ne da ngaa takk ci àddina martaba bu mu mën a doon bu sa xel xalaat wala nga am alal nu mën a toll munoo teral sa ndey ak sa baay munoo ko donte ne benn seconde la munoo leen koo fay kon looloo tax islaam di dénkaane nit ay waajuram mu ne inna min a'zami al-ma'asi allati asa allahu biha fi al-ard subhanahu wa ta'ala qat'atu rahim wa uququl walidayni instant yi ñu toll bàkkaar yi gën a rëy ci àddina bi yi ñu mooy yàlla fii ñu toll bàkkaar yi gën a réy yi nit ñi def mooy ñaar kese la dagg mbokk dënge sa ndey ak sa baay dagg mbokk sa mbokk yi nga dagg leen la moo tax nga dagg leen mooy da nga leen tekkal ay ticket indi ay problème sa digganteeg ñoom ba ñoom dootuñu ñëw ci yow yow dootoo dem ci ñoom dagg nga mbokk gi ñaareel bi mooy sa ndey ak sa baay ci tey ji fi àddina bi di toll doomu aadama yi dañuy wax ne dañoo avancé est-ce que bokk na ci avancement nga yóbbu sa ndey ak sa baay maison de retraite yow bi nga juddoo pourquoi pas bi yóbbu la maison de retraite mu ne kii dafa lakkale dafa mën a jooy guddi sa yaay mu ne kii day sawaate day dem àll ba dafa mën a dafa mën a dafa mën a bi ngay nekk liir su ma ko bootee daf may sonal daf may tere liggéey daf may empêché instant ba buñ la jëloon sànni la ci àll ba est-ce que di nga fi màgg ba tala ba tala ba tala ba tala non kon loolu moo tax mu ne bàkkaar yi gën a rëy tey ci kaw suuf yi ñu mooy yàlla tabaraka wa taala mooy dënge sa ñaari wayjur ak dagg mbokk te loolu am la nit ñi dañuy dagg mbokk yamuñ ci dagg mbokk waaye mooy ñaari wayjur loolu tax yàlla dig mbugal te waada allahu bil adhabi al alim al aq li walidayhi yàlla dig ne képp ku dënge sa ndey ak sa baay dinaa la mbugal bi ñu laajee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bàkkaar yi ban bàkkaar moo ci gën a rëy lan la wax uququl walidayni uququl walidayni la yonent bi wax dënge sa ñaari way jur kon comme bàkkaar bu rëy la loolu moo tax ab julit war ko mooy tandiku ab julit war ko sori bañ a mooy ñaari way juram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee bokkaale bi mu limee bàkkaar yi rëy bi mu waxee bokkaale ñaari way jur la ci teg kon looloo tax ñu war a moytandiku yàlla dig mbugal kuy dagg ay mbokk waaye ak dënge sa ñaari way jur mu nekk jarima sania bàkkaar bu ñaaw bu rëy boo xam ne dëgg-dëgg yaram xol war na cee lemu war na banku bañ jullit war na rus loo xam ne yahud yi sax rus nañ ko boo demee ci diina yahud wala diinay nasaraan wala bokkaatekat yàlla ci seeni sharia ñoom ñaawlu nañu nit di mooy ñaari way juróom bu fekkee diina yahud moo lànk loolu ceddo yi seen diine lànk loolu nasaraan yi seen diine lànk loolu kon mbokk yi ci sunu sharia ñun lan lañ ci war a fekk walisa ayuha al ahbab looloo tax mbokk julit yi ñuy gis tey ay doom di dënge seeni ndey ak seen baay lànk bañ leen jox seen aq ak seen gëdd léeg-léeg kenn ci ñun sax ay way juróom dinañ tollu fenn ci ay âge boo xamee ay gan ñu ziar si la doo leen présenté sa papa ak sa yaay da nga ñëw rek direct sa néeg ñi waxtaan ba ñibbi direct ngeen génn ñibbi lan moo tax yóbboo leen daan ne waa ji sa xarit yi kii mooy sama papa kii mooy sa yaay sama yaay lu tax parce que da nga jàpp ne léegi dañoo ñaaw paa bi léegi amul ay bëñ wala mère bi léegi lex yi dafa nor wala paa bi dafa xuuge wala wala wala ay affaires yu manqué yoo xam ne ak âge moo leen ko def looloo tax léegi sax yow da ngay dem ba am complexe di leen présenter wala yàlla baaxe la li ngay njëkk a def mooy toxu ci kër gi dem dëkk beneen kër ñaata sénégalais ngeen gis bi ñu demee ba tekki lu njëkk a def mooy ut fu sori fu lix fu féex ñu tabax yóbbu seen jabar bàyyi seen papa ak seen yaay ñaata sénégalais ngeen gis yu def loolu damay laaj foofu benn laaj bu fekkoon ne paa bi bi mu amee jabar dafa am doom daal di koy bàyyi foofu daal di dem toxi feneen ne kii dafa mën a jooy mu ko ñu bàyyi la ci kër googu ñoom ñu dëkki feneen bis bi maire bi jógee hôpital rek ak doom ji ñu ne ko wuu nañ toxu kii ku mën a jooy guddi la gis nga démb suñu guddi gi nelawuñu ñu toxu bàyyi la foofu yow kese nga tëdd luy xew ah dina baax ah est-ce que dina nekk lu rafet nit ñi bu ñu xëyee suba ñu ne waaw xale bi fanaan a jooy fii moom kese moom anay way juram lu ñuy wax léegi nag doomu aadama moom loolu la fay ndeyam ak baayam am nekk xoola paa bi li mu jëf yëpp études yi kan moo ko fay kan moo doon góorgóorlu sa santé kan moo doon góorgóorlu sa dund kan kan kan ba nga taxaw ne këj li nga njëkk a def mooy waaw mais pas xam nga temps yi moom fële sunu liggéey tël nañ ma benn logement wala benn te yenn saa yi ay fen lay doon tël nañ ma benn sunu liggéey dañ ma wutal benn logement ñu ne il faut ma toxu fekk ay fen la yow yaa bëgg a toxu donc parce que yaag sa jabar yéene ni mënatu leen nekk fii parce que kër gi dafa bëri nit di togg mbana wala di togg fukki kilo mënuma ko surtout nag bu dee jigéen ju bon moo tax jigéen ñi waroon ragal yàlla nga fekk nit jur doomam sonn ci moom daf ci moom lépp àddina ak àllaaxira mu def ko ci nga ñëw nekk ci noppam bi guddi nekk ci noppam bi guddi di ko yëy di ko yëy ba waa ji mënatul déggoog ndeyam ak baayam fan lay mujj yéen ñaar ngeen dem yéen ñaar condom ngeen dem di lekk benn saaku ceeb nga xam ne saaku ceeb bi dina def weer parce que bis bu nekk ngeen waa livre ngeen di sóor paa bi nekk fee commencé di leb ceeb di leb mburu te paa bi li yow yaa tax mënta dajale dara parce que yow la doon fayal yow la doon faj yow la doon yow la doon yow la doon ba mënta denc loolu jaadu na kon nanu xam sunu waajur yi yan féete lanu féete ak nun lan lanu defal loolu buñ ko xamee bu sunu ndey ak sunu baay meloon nu mu même sa papa bu fekkee day xëy suba bu lay nuyu saaga la lay saaga da ngay comprendre sant yàlla xam ne yow la yàlla nattoo nga am waajur bu mel nii nga muñ ko parce que paa bi am na lum la muñal lu bëree bëree bëree bëri waaye waxuma la yooyu mais yu ndaw ndawaan mooy tax yenn saa yi doomu aadama quitté këram jàng nañ xadisu Bilal Bilal nee na benn bis dafa am benn waay ci jullit yi ci saxaaba yi buy sukuraat ñu wax ko yonent bi mu ñëw yonent bi ci toog ci wetam ne ko waxal laa ilaha illallah mu ne mënuma ko wax ma làmmiñ bi dafa diis pour wax laa ilaha illallah mënuma ko wax sama làmmiñ bi diis na ci yoon ne ko waxal laa ilaha illallah mu ne mënuma ko wax yeneen tamit ne kii ana ana way juram ana yaayam ñu ne yaayam mu ngi fi mu ngi dund ne dem leen ngeen wool ma ko yaay yi ñëw mu ne ko waaw kii lan mooy lan moo dox sa digganteeg moom mu ne kii daal daa jëloon jabaram teg ko sama kaw yonent bi ne waaw kii kon loolu moo tax mënut a wax laa ilaha illa allah yéen na ko baal ko mu ne du ma ko baal mun ma ko baal kii mun ma ko baal allahu akbar xam nga loolu doy na waar sa digganteeg sa wuy jur nga dem ba mënu laa baal ndax li nga ko def tey am na ci suñu société am na fii ay sénégalais ak ay sénégalaises yoo xam ne suñu taxawee seen kër suñ nee seen papa baal ma même boo àndoon ak groupe imaamu Sénégal yëpp ñëw pour ñu dimbali la bu ñu baal la sa papa danaan kii baalu ma ko loolu war nañ ko bàyyi xel bu baax yaayu waa ji yonent bi ne ko baal ko mu ne baalu ma ko yéen ne ah kon de Bilal daf leen ngeen indi ay mat ngeen taal ko ma lakk ko comme yàlla da koo nar a lakk ci safara jahannama te moo gën a tàng kon naa ko lakk fii ci àdduna ndeysaan yaay ji rek xam ngeen nit ak doomam mu ne yeneen da nga ko bëgg a lakk ah mu ne dama koy lakk kay ndax yàlla da ko nar a lakk mu ne waa léegi kon baal naa ko bul ko lakk bul ko lakk bi yaay ji ne baal naa ko bi yonent bi naan waa ji waxal laa ilaha illallah waa ji ne laa ilaha illallah ruwam daal di daw nit na moytandiku daraja place alal diplôme taar melokaan loo ci mën a am mooy te ndikul bu mu la jay ba nga xeeb sa ndey ak sa baay yii moo tardeel sénégalais yi da ngay mel yenn melokaan yi rek bu dee góor nga bu dee jigéen commencé xeeb sa papa ak sa yaay parce que yaa leen gën a rafet wala nga raw sa papa ci diplôme nga commencé koo xeeb wala nga takk benn ndomba tànk boo xam ne moom mus ko takk nga commencé leen xeeb wala nga am benn poste wala nga am benn liggéey wala nga toll fenn ci alal rek nga commencé dañu gis benn paa boo xam ne ndeysaan fa ñu dëkk paa bi dafa xëy rek di jeex di jeex jeex yu métti waa koñ bi ne ko xaritam yi ñu ne ko waa góor gi luy sa mbir lan moo tax nga jeex nii mu ne diw ak diw mu wax seen tur ñu ne ko lan lañ la def mu ne ah xam ngeen seen étude yi xoolal ni ma ci sonne bi ñuy dem France maa ngi utal bourse ñu dem bi ñu demee amuñu xaalis maa leen doon yónnee ba tey ñu tekki kenn ki ñëw nekk nangam kenn ki nekk nangam ne lan lañ ma fayee biñ ñëwee kenn ku nekk da ngaa jënd almaadi logement toxu ak sa jabar ñu bàyyi ma fii ma toog semaine bu nekk benn yoon lañ fi ñëw dimanche bu nekk ñu ñëw dimanche ci ngoon papa ça va ça va bon hein, ku nekk jox ma 5000 dem wala 10 000 mu ne est-ce que loolu laa leen juree woon ñaata nit ngeen xam yu def loolu ñaata nit ngeen xam yu def loolu ñaata ñaata ñaata ba ci ay sunnit sax laa wax yi ko def ay sunnit ñuy wax ne ay sunnit lañ ñu ko def bàyyi seen ndey ak seen baay dem dëkk feneen sori waaw loolu ab jullit du ko def ab jullit du sànni ndeyam ak baayam ab jullit ndé lu tax ndénkaane la wa wasayna al insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn yàlla nee na maa la dénk sa ndey ak sa baay lu tax parce que dañ la yenu ci coono ak coono am na ñoo xam ne bi ñuy judd la seen way jur génn àdduna maanaam seen sababu génn seen yaay àdduna lan moo ko sabab mooy ñoom bis bi ñuy judd la seen yaay dee ñoom ñu sauvé leen ñu génn ñu ñëw àdduna xoola ko sababam ñeneen ñi seen yaay ci lañ jële ay meret dof dof jur ba pare meret bi monte ci bopp bi mu dof kooku lu ko dof la yow ñu nekk am nañu sabab yenn saa yi def seen dégâts seen ndey ak seen baay jàng nañ suratu kahfi yàlla ne ndeke doom dina tax ndey ak baay dem safara ba moo tax yàlla sant Muusa na rey xale bi bi mu dajee xudar amma al gulaam fa kaana abawaahu muminayni fa xasina an yuriqahuma tuxyaanan wa kufra yàlla mu ne nañ rey xale bi lu tax su màggee day tax ndeyam ak baayam dem safara kon ñaar ñi lan moo tax ñu dugg safara mooy xale bi lañ topp lu ko neex lañ topp bëgg-bëggam ba mu weddi loo leen yàlla ñu daal di dee dem safara kon gis ngeen conséquence diggante doom nit ak ay doomam tey li bari ci ñun ci gàttañlu ci ñàkk a góorgóorlu ñàkk a xam dëgg dëgg dëgg dëgg lan moo war a dox diggante doom ak way juróom loolu moo tax ñu gàttañlu ci duñ ci xóot ci France benn imam dafa toog ci biir jàkka ji di jàngale ba ci àgg rek benn xale bu góor ñëw daal di laal mbagg yi ci ginnaaw imam bi siggi mu ne ko sama yaay moomu yónni ci yow mu ne ko lan la wax mu ne nee na nga jàngal ma sa diine mu ne ko ma jàngale sama diine mu ne waaw mu ne an sa yaay mu ne mu ngi taxaw fii ci ginnaaw tali bi imam bi daal di jóg jàpp ci loxo xale bi taxaw ci buntu jumaa ji mu seen femme bi taxaw ne le mu taalal ko loxo femme bi traversé tali bi ñëw mu ne ko kii loo ko wax sa doom la mu ne waaw sama doom la mu ne loo ko yónni mu ne damaa bëgg nga jàngal ko sa diine mu ne mais man jullit laa de mu ne waaw daf ko jullit mu ne waaw lu tax mu ne dama dëkk ak benn benn famille boo xam ne Tunisie lañ bàyyeekoo ñëw France mu ne dama taxee sama balcon du muy gis xale yi nu ñuy foow ak seen yaay ak nu ñuy foow ak seen pap ak ni ñu leen di dimbalee mu ne loolu laa bëgg sama doom bi mel ndax damay bañ ma màgget mu yóbbu ma maison de retraite xam nga foofu France loolu moo fa am boo nekkee sa papa la sa yaay mu màgget looy def jàpp ci loxo bi dem ba maison de retraite ne rek na ko bismillah weer dee dinaa fay si femme bi mu ne mu ne imam bi loolu laay bañ kii def ma ko ndax yéen ci seeni société gisuma fu ngeen tabax maison de retraite est-ce que loolu am na ci islam lan moo tax yàlla waxul nañ tabaxal suñu papa ak suñu yaay maison de retraite bal yàlla ne maa leen ko dénk luñ la dénk su ma doon dem léegi dénk la sama saak bi même boo ma gisul fii ak ñaar fukki at nooy def ah da ngay denc rek ah oustaz moom ko joxoon xam nga kañ lay ñëw moom ko joxoon ba kañ même boo déggee dee naa nga doog ko yóbbu sama njaboot mais seen papa moom a dénkoon lii wala léegi nag kon yow wëy jur bi bu la ko yàlla dénkee kañ nga koy delloo dafa am benn ibnu mas'ud wala abdullah ibnu abbas kenn la ci ñoom ñaar dafa gis benn waay bu boot papaam di wër ak moom kaaba gi mu daw ba pare mu ñëw ci ibnu abbas ibnu abbas ne ko ki nga wootoon kan la mu ne ko sama papa xanaa léegi nag day lim ma lebaloon lépp fay naa ko mu ne ko tàmbalee googu dafa ko dara dafa ko dara tàmbalee googu moo tax nit mënut a fay ay way juróom kon nan góorgóorlu doomu ndey yi mbokk julit yi ay way jur ndénkaane borom bi tabaraka wa taala la sunu borom moonu ko dénk mu wax ñu ne ñoom ñaar àndandoo dund lañ àndandoo ci dund gi benn waay dafa toog ba ci yàgg rek ñëw ci Maamun ñëw di jàmbat mu ne ko luy sa problème mu ne ko dama am doom dama am fitna àdduna mu ne ko ba fitna àdduna loolu rëy na de luy sa fitna àdduna mu ne ko sama benn doom waaw lan la la fitnaale mu ne dama ko jur fu ma ko war a juree ma bokk ak moom sama alal ma jox ko mu lekk ba suur man ma xiif ma jox ko mu naan man ma mar ma jox ko mu solu man ma rafle su feebaree ma jël feebar bi yenu ko mu mu wér ma dem ba màgget sama ndigg lemu sama yaram jeex samay bët dugg sama bëñ yi màbb sama lex bi dugg mënatuma dara mu daal may abandonné daal dem benn bis may wax ak moom mu wañ sama loxo eh yow yàlla ni mu wañee sama loxo yàlla na nga wañee loolu loxoom boroom xam-xam yi nee nañ xale boobu mu guddee fan loxo bi dafa wañu ba ñëw ci digg ginnaaw bi xool leen paa bi li mu wax bi mu xiifee moom laa jox mu lekk man ma xiif loolu loolu dëggu na Sénégal fii ñaata ci ñun kenn ci ñun la sa papa di am 500 francs soxlaw ko nga ñëw ne papa mu daal la koy jox toog wala mu jox ko kër gi moom mu toog lekk bi bu dee tuuti yaa ak sa papa ngeen bokk kan moo koy lekk mooy laa ci bu doon benn kaasu ataaya la ndox yéen ñaar ngeen mar kan moo koy naan dama laaj ci yow la koy jox nga naan moom mu toog bu ne papa naa mu ne non non moom bàyyi rek man dinaa dinaa dinaa voilà. moo tax nit bu yóbboo amal lu nekk mënoo fay sa ndey sa baay kenn ku nekk ci ñun fi toog góor wala jigéen bu dee ñëwoon yaa ak sa papa ak sa yaay. mu ne yéen ñaar yéen ñett ñi ñaar laa jël si ñan ñooy nangoo dee ah sa papa ak ñu naan ñun ñun nan dee nan bàyyi kii mu dund allahu akbar ndeysaan xoolal loolu rek ku la yéene kan mu la yéene loolu ci àdduna yow fi mu nekk nii fii fii fii ñun ñu toog ñii fii fii bu dee ñu woon daane waaw yéen ñi gars yi kuy dem ku nekk dem ah waaw doo dem yéen waa nañ seet mbokk bi moo ñëw fi iman ngeen ne non xam nga taay laa njóg a ñëw voilà mais bu doon sa papa ak sa yaay la duñ fi nekk di discuter dañuy ñëw rek ne ñun ñaar nan dem nan dem ñun ñaar kon nan bàyyi xel loolu paa bi ne man xiif naa mu xiif ma jox ko mu lekk ñëw na ci hadis ñetti nit ñi duggoon ca ca xontuma xeer bi tëju ci ñoom bi ñu yeewoo mëntuñ génn lan lañ xalaat nañ def tawassul ci suñu amaalu saalix yi ñu defoon suñu jëf yu baax yu ñu defoon nañ ci ñaan yàlla ndax yàlla ubbil nu xeer bi kenn ki ne ah man de amoon naa ñaari wéyjur góor ak jigéen amuñ njaboot yàlla defoon na dañuy ratti ñu rattee bu ñu ñëwee man sama ndey ak sama baay laa daan jox ñu lekk ba pare naan ba suur ma doog a jox sama njaboot benn bis dem naa ma guddee balaa may ñëwaat ma fekk sama ndey ak sama baay di nelaw sama njaboot toog di xoole di jooy sax nag ndax xiif waaye day yàlla xam nga ne keroog denc naa lekk bi ba sama ndey ak sama baay yeewu fajar ma jox leen ñu lekk ba suur ma doog a yóbbu sama njaboot te fekk naa sama ndey ak sama baay di nelaw sama njaboot a ngi yeewu bu doon kenn ci ñun fii nooy def ah comme papa ak mère bi ñu ngi nelaw day xaaral ma jox booy yi ñu dóor quoi ah bu doon kenn ci ñun loolu nga sa xel nangu loolu la xel nangu waaye kii dafay wane ne fonk gi mu leen fonk bëggul leen teg ci kaw lenn denc lekk bi xale yi di jooy di jooy di jooy ba ñee yeewu mu jox leen ba ñu pare mu doog a indil ñii yàlla bu fekkee lii ma defoon yow yaa tax yàlla xeer bi ubbil na ko ñu waa ji daanelee lan lan la xeer bi def ah xeer bi dafa yëngatu ubbeeku ba ñuy gis lumière mais mënuñu génn ñeneen ñaar ñi xam ngeen lu ñu wax léegi nag yéen ñaata lañ woon yéen ñaata lañ woon ñett buñ doon ñeent la te kenn ci ñun fi toog yow yaay leen quatrième yaay seen quatrième personne lay wax ku nekk laajal sa bopp laaj bi góor ñi jigéen ñi bu doon man la bu doon yéen kenn ku nekk ci ñun yow yaay quatre quatre personnes lañ te yow yaay quatrième lay wax loolu moo ñu war a soññ ñu war a bëril jëf yu baax rawatina ci sunuy ndey ak sunuy bàyyi pour lan pour bu ñu demee ba toll ci situation yu mel noonu ñu war a xalaat mbir yu mel noonu qarana allahu xaqahu bi xaqihima wa jaala min lawazimi alubudiya birru lwalidaini wa silatu rahmi mbokk yi sunu borom dafa lënkale aqam aq ak aqi ñaari way jur xam ngeen aq ah yàlla dafa am ay aq yoo xam ne moom dong moo ko moom mooy nañ ko jaamu buñ ko bokkaale yàlla jël àqam yooyu lënkale ko ak àqi way jur mu def ko muy jaamu yàlla ndeke sa way jur wax bi ngay wax ak moom jëflante bi ngay jëflante ak moom déggal gi nga koy déggal yërëm bi nga koy yërëm def lu baax bi nga koy def lu baax ndeke defoo ko nii rek ndax ki mooy sama papa waaye danga koy def ngir jaamu yàlla ndeke loolu moo tax su doomu aadama nekkee julli dëgg xam waxuma sax kii sama papa la rek dama ko war a téye sa papa la rek danga ko war a téye waaye da ngay def ne moom sa papa la ba pare waaye damay jaamu yàlla ci moom parce que yàlla moom ko sant parce da ngay am ñaar da ngay am sa papa ba pare am am yàlla loolu tax yonent yàlla Moussa dafa mos toog biir banu Israël lu jaag rek mu ne yàlla dinaa ndax man damay dugg àjjana yàlla mu ne ko waaw mu ne mu duggee àjjana kan lay àndal man rafiqi fil janna ya yaa rab ala mu ko taxawal ci buntu kër gi xif ala tariq ku la njëkk a romb rek moom la Moussa toog rek benn waxambaane benn jeune romb ko mi ngi yore flèche ak benn mbuus lan la koy doyee Moussa topp ci ginnaaw waxu ko jekk ñëw rek woo ko daf ko topp jeune bi di dox ba buntu këram Moussa taxaw mu dugg ci biir benn néeg génne basang lal ko ci digg kër gi delluwaat ci biir néeg bi yen yenu fa benn meer indi ko teg ko ci basang bi tekki mbuus bi mu indi ndeke yàpp moo ci nekk muy dagg di jox meer bi mu lekk ba yàpp bi jeex mu indil ko ndox mu naan mu yenu ko dugalaat ko ci biir lem basang bi dugalaat ko ci benn rux daal di gàdduwaat flèche yi di génn Moussa daal di jàpp ci mbagg yi ne ko taxawal mu taxaw mu ne kii nga doon jox mu lekk lu ngeen bokk mu ne ko sama yaay la mais loo ko doon jox mais saa yu ma xëyee suba damay dem ci àll bi rëbb jàpp ay njombor rey leen lakk leen ba mu ñor ma indi ko loolu laa koy jox mu lekk mu ne boo ko joxee mu lekk ba bare mu naan gis naa mu lay ñaanal ban ñaan la la ñaanal mu ne day yëkkati yàlla loxo mu ne allahumma ij'al ibni haza maa musa ibnu imrana fil janna yàlla yàlla nga boole sama doom ji ak musa doomu imran ci aljanna allahu akbar musa ne ko absir fa ana musa fa anta rafiqi fil janna xale bi kontaanal man maay musa yow yaay sama àndandoo biir aljanna xale boobu mbokk yi fan la amee aljanna ah fan yi passé dafa am benn professeur Égypte ay xale yuy def sixième mu leen di jéem mu ne mu laaj leen ne leen fan la aljanna nekk xale bi ñuy wàcc midi mu ne leen su ngeen di ñëw suba ngeen wax ma fan la aljanna nekk bi xale yi xëyee mardi ñëw première heure rek mu ne leen alors question bi ma leen joxoon ana àjjana fan la nekk rek benn xale daal di génne benn këyit bu am suuf mu ne ko aljanna ngi nii mu ne ko lii foo ko jëlee mu ne ko ci sama suufu tànku yaay foofu la aljanna nekk mu ne ku la ko wax mu ne ko aljanna taxta aqdaamil ummahaat aljanna taxta aqdaamil ummahaat aljanna mu ngi seen suufu tànku yaay léegi kon aljanna soriwuñ même bu dee hadis bi daif na mënees na kaa jëfandi ci fadailul amal mbokk yi kon nanu góorgóorlu doomu ndey yi nekk ndaw bu munu tere ñu xam li nu yàlla subhanahu wa taala dénk ay jullit lañ benn ñaar dañ gëm lislaam ñett yàlla moo nu dénk sunuy wayjur ñu yoral leen ay àq war a sàmm àq yooyu ñuy dund ñu dee est-ce que xam ngeen ne dañuy yoral sunu wayjur yi ay àq même buñ deewee même buñ deewee mais xoolal tey sunu société ni mu yàqoo paa boo fekk guddi mu génn këram boo ko nee lan la mu ne la ngañ moo màndi mu fi ci biir nee na ma duggee mu dóor ma meer boo fekk guddi mu taxaw ci bunt kër gi tëddul boo ko nee lan la mu ne ndey ndey moo ndey moo tëb fenêtre dem moom lay xaar mu ñëw ma doog a tëdd maanaam jamono bu nekk mooy jamono boo xam ne ndaw yi dañoo tiital seeni ndey ak seeni baay fi mu nekk ni kenn ci yéen bu toogee ba une heure du matin ñëwul seen waa kër xam ne ñëwul est-ce que dañuy tëdd kan la fi papa ak yaayam di dund fii ci yéen toog sa waa saa yi ñu ngi dund soo toogee ba une heure du matin ñëwoo ndax ñoom dana nelaw lu tax du nelaw seen seen conscience moo dul tran moo dul moo dul dal seen xel du dal wax ana kii da ngay fekk paa bi bu xamee foo dem daf lay jëli su xamul da ngay gis muy baagante koñ bi mbedd mi taxaw ci buntu kër gi soo yore portable ñu yolay woo jaaxle waaw boogu nag boo ñu ñunoo il faut nekkoon waaw mi nga wooñu waaye lii bul ko defati gis nga ñun boobu léegi tëddunu léegi nag waxuma sax ci loolu lañ yem waaye da ngay gis léegi kuy dóor papaam kuy dóor yaayam yenu sa papa ak sa yaay ba ci kaw dóor ci suuf wala sa sa jabar ak sa yaay di xeex ngeen di jabar joo xam ne day xeex ak sa yaay boo ñëwee balaa ngay laajte wax meer lii lan la sa jabar ne kaay fii ba pare nga ne waa meer xaaral ma ñëw nga dem sa jabar yéey sa nopp nga ñëw ne meer meer yow da nga bëri wax yow da nga bëri wax yow da nga bañ a gis sama jabar ji ñaata yoon ngeen ko gis ci dëkk bi loolu gisu leen ko est-ce que si suñuy grand frère suñuy tonton suñuy suñuy defuñu ko xanaa maire bi tey la bëri wax xanaa tey la xanaa tey ngay gis bëri wax maire bi ah démb ba mu lay laab ci la boot ngay def yu kenn xamul ci kawam muy bàcce ko fóot est-ce que bëri woon na wax xanaa tey nga gis nangam nangamam yooyu nañ ci bàyyi xel bu nu sakk jëf te loo leble nag loolu lan lay fay de kamaatu diinu tuddaanu loo lebal sa yaay ak sa pap boo amee doom mu fay la ko gis nga yii ñuy gis nii du hasard de yi ci bëri dañ ko lebaloon seen ndey ak seen baay surtout nag jigéen surtout jigéen damay faral di wax xale yi may former école bu ma sañoon semaine bu nekk jigéen ñi toll nii dinaa leen yóbbu buntu maternité salle d'accouchement su ngeen xëyee suba ma yóbbu leen ba salle d'accouchement ngeen def fa 40 minutes su fekkee su nga fekkee na di ngeen fekkee foofu jigéen ñi ni ñuy amee doom su ngeen génnee ku sa yaay wax di nga ko dénk même góor ñi nga xam ne defuñu dara bu ñu doon dem salle d'accouchement rek def fa une heure de temps di déglu ay yuuxu rek ngay dégg ci jigéen ñi am doom dañuy yuuxu lu ne ma la ñuy daj ndax am doom ni mu méttee te li doy waar mooy ndaw si journée boobu mu yendoo yuuxu yëpp wala 24 heures bu mu yendoo yuuxu yëpp wala semaine boobu mu yendoo yuuxu yëpp bu doom ji génnee rek talatul boppam de te deret jaa ngi sotteeku doom jaa ngi ci butit yi ñoo ngi jël ciseaux yi di dagg ba da ngay gis mu ne lan la am man doom la doom ji lan la góor ji mbaa moom gaañuwul wala moom talul boppam de ma ngay laajte doom ji ndeysaan allahu akbar suñ ko yóbbee sangu ko raxas ko ba pare def ko ci ay kii laltaay indi lu muy wax waaye indi leen ma ko ma fóon ko ma xool ko léegi ma xool docteur yaa ngi ko wër moom moom du tal doom du tal boppam kooku nag ëllëg ak si biir nga taxaw ci digg dëkk bi di yuuxu di wax ah wala ngay xeex ak moom wala nga indi nit kuy xeex ak moom moo tax bala ngay takk jabar war nga wax ak jabar ji xamal ne ko sunu kër laa la jëme ci sama ndey ak sama baay laa la jëme bu fekkee man dong nga bëgg nekkal nga wax bu fekkee ne mën ngaa nekk ak ñun ñëpp nga wax mais am na ñoo xam ne bala ñuy takk jabar la jabar ji bi commencé waaw xam nga man vraiment bëgg naa la mais nag mu bëgg après ñu uti appartement loolu jabar ji la koy gëmloo yow nga xam ne du nekk ak sa ndey du nekk ak sa baay loolu laa leen di wax de man de du ma takk jabar man bu dul nekk ak sama waa kër man soxna imaam yëpp ñu ngi suñu kër ku nangul nekk ak sama ndey ak sama baay demal mu wuti keneen ku nangul nekk ak sama ndey ak sama baay parce que ñoom la woon ba ma ba ma mën li ma mën waaw jigéen bu la bëggee day bëgg sa ndey bëgg sa baay waaye man wax dëgg yàlla yow laa bëgg mais bëggu ma ndey sa ndey ak sa baay loolu lu mën lu ko mën a gëme nit mën a gëme ah loolu lu ko nit mën a gëme kon nan góorgóorlu waaye waaye waaye waaye mbokk yi li ñuy fonk ndey ak baay yëpp liñ leen di teg ci kaw yëpp ah yàlla nag moo leen gën a màgg nag yàlla nag moo leen gën a màgg su yàlla taxawee ndey ak doom baay taxaw kan lañu war a def santaaneem yàlla waaye suñ koy def aussi ci ban defin bu rafet mi ngi mel ne tey bu la sama bu ne woon bokkaaleel wala kaa ma yóbbu la fu ñuy defee bokkaale wala kaa ma yóbbu la fu ñuy defee shirk ndax da ngay dem ah ndax da ngay dem ne waaw non il faut ma dem parce que sama papa ak sama yaay yàlla nee na naa leen topp déedéet wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma waaye wa saahibhuma fi dunya maaruf yàlla nee na buñ la santee nga def loo xam ne du diine pour ko def waaye na nga ànd ak ñoom ci àddina ci njekk bul dem de bul takk de bul naan de bul diw de bul wax de waaye àndal ak ñoom ci njekk kon nanu góorgóorlu doomu ndey yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj nañ ko mu dénkaane yaay ñetti yoon balaa muy dénkaane baay benn ndaw ñëw ne ne yonent bi damaa bëgg a jihaad mu ne ko ndax sa ndey ak sa baay ñu ngi dund mu ne waaw mu ne demal nga jihaad ci ñoom kon wax ju ñaaw wax ju jaaduwul ju rafetul warul sunu diggante sunu ndey ak sunu baay benn waaye ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yastaki mu ñëw ci yonent bi di jàmbat yonent bi ne ko maalaka qaala mazlumun ya rasulallah min ibni dañ maa tooñ ku la tooñ sama doom ay zulm ban tooñ la la tooñ mu ne rabbaytuhu yar naa ko maa ko yar allahu akbar ba mu màggee gisatuma amatuma doole sama xaalis jeex na mënatuma def dara mu sàggane ma qaala sallallahu alayhi wa sallam hal qulta shay'an len di na mbaa waxoo ko dara mbaa ñaanaloo ko mu ne naam wax naa dara de wax naa ko dara de te li garaaw mooy ñun dem nañ toll foo xam ne dañuy jàpp ne sax bu ñu defee dara lu bon sunu ndey ak sunu baay bu ñu ñaanalee dara bu lay ñaanal nga yàlla ko yéen di moo ko wax ñetti nit yàlla du delloo seen ñaan ñetti nit ku woor bay dog yàlla delloo ñaanam wala ku ñu tooñ yàlla du delloo ñaanam ndey ak baay yàlla delloo seen ñaan buñ lay ñaanal alkande alkande di la dal wala nga tàngal seen xol loolu moo tax ñu naan nit du tàngal xolu ndeyam te tey ak a bëri ci ñun ñuy jooyloo seen yaay ak a bëri wala jooyloo seen pap ak a bëri paa boo xam ne day ñëw di wax ak yow yàggul dara jiite naa jumaa ba pare ma bëgg a génn jumaa ji benn paa xëcc ma fii roi bu doon ma reculer mu ne ma ci sa biir xutba dafa am loo ci wax dama am ñetti doom kenn kaa ngi Amérique kenn kaa ngi nangam kenn kaa ngi nangam mu ne waaye nanguwuñ maa dimbali nanguwuñ maa jàppale kenn ci kenn ci ñoom dëkkul ak man ci kër gi kër gi ma dëkkoon nga xam ne man maa leen far jur dal baa ngi commencé daanu ba damaa génn luwe ji mu ne location sax duñ ma ko fayal mu ne lu gën a garaaw mooy dañ maa mayoon oto ñu nangu oto bi dem gaare ko quelque part te li may wax ni fii dong la su ma waxoon góor gi léegi ngeen xam ko wax wax yu garaaw yoo xam ne ma ne ko jox ma numéro téléphone kenn ki mu jox ma ma woo waa ji sama kër tegtal ko ba mu yegsi ma ne ko ndax xam nga paa diw mu ne waa xam naa ko lan ngeen bokk mu ne sama papa la ma ne ko waaw foo dëkk mu wax ma fi mu dëkk ma ne ko looy liggéey mu wax ma ma ne ko sa papa xam nga situation yi mu nekk mu ne teg di ma déglu xam nga sa papa situation yi mu nekk ndax am na lu ma ci xam ne ma ne ko lan ak lan moom mu ngi liggéey fii ne ma ne ko non non est-ce que fi mu dëkkoon nga la dëkk mu ne déedéet est-ce que yoru loon oto di dawal ah ok ana oto ba mu noppi ma ne ko yéen ko nangu maa ngi moom maa ngi moom maa ngi moom ma dénk ko li yàlla wax mu dem ma toogaat une semaine woowaat ko ndax li ma la waxoon yaa ngi ci mu ne ah waaw waaw maa ngi góorgóorlu nangam nangam semaine bee ma gis paa bi paa bi ne ma waaw jëndalaat nañ ma oto jox nañ ma billet pour ma dem umra ma ko weer wi di ñëw lay dem umra loolu moo jaadu loolu moo jaadu parce que papa ak yaay duñ ko duñu duñu ñoo xam dañ leen war a abandonné wala duñu ñoo xam ne même buñ la defoon lu bon xam nga ñoom luñ mer parce que dafa fase woon seen yaay biñ nekkee xale mais bi mu fasee mère bi aussi ñoom yar na leen jàppale na leen xamuñu xamuñu lan moo tax xamoo ko yenn saa yi nag li tax nit ñi di abandonné papa wala abandonné yaay benn mbir moo ciy nekk da ngay nekk ak sa papa ak sa yaay ñu tas nga ànd ak sa yaay boo demee sa yaay na kii seen baay ji di wax ci moom loo xam ne xale bi day bañ baawe bu fekkee yaa papa ji moo la yóbbu muy wax ci mère bi loo xam ne day tax xale yi bañ seen yaay loolu musiba la loolu moo tax ñu islam di bañ sëy bu tas gis nga sëy bu tasee xam nga nu mel mi ngi mel ne papa ji dafa jàpp ci main gauche yaay jàpp ci main droite ñu indi si xam ngeen si daal di siyee xale bi ci kaw ba ci suuf ku nekk yóbbu benn ku yóbbu ku nekk yóbbu benn benn xaaj benn ŋàllit noonu la xale bi di mel loolu mooy bu demee ci papa ji lu muy wax ma sa yaay ju bon ji kaw fi ma jaar ak moom bu fekkee ci maire bi la boo ñëwee ci maire bi mu ne ana sa baay ju bon ji ba kañ xale boobu léegi nekk ci diggante sa baay ju bon sa yaay ju bon sa yaay ju bon sa baay ju bon kooku lu muy def man a yërmande mooy jeex ci xol bi ku mu ci dëggal rek keneen ki alku na loolu kon waruñu dal waaye nag mbokk yi tomb bi ñuy jeexale mooy ci wàllu jaamu yàlla kenn du ci topp ndey ak baay waaye dinañ ànd ak ñoom ci lu rafet xamal leen nag li jaamu yàlla la defuma ko ngir nga mer dañoo amoon benn benn benn cheikh bu ñu doon formé génn àdduna yal na ko yàlla yërëm mu tudd oustaz Abdul Karim Guèye moo ñu daan formé ci daaw bi lu bare bari ci sunu wàllu dund ci moom lañ ko jëlee ci wàllu jaamu yàlla ndeysaan lañ ñu mus a tere jàkka ji ñuy jullee dañ ñu mus a tere ñuy wax amin bu limaan di julli bu ne wala doolin ñu ne amin ñu interdit ñu ko nag boobu kenn wax paa bi ne leen ñun defuñu ko pour ngeen mer ñun dañ koy def jaamu yàlla ndax yonent bi moo ne ida qaala al imam wala dalin fa qulu amin ndax képp ku wax amin amin ak aminu malaaka yi daal di dëppoo yàlla da lay jéggal bàyyi ne ko xoolal fii kenn du ko fi wax fii du màkk ñoog payi ñoog payi ñoog payi ba benn bis ñiy julli timis ndeysaan imam bi ne wala dolliin keroog dañoo amoon tuur nag mbokk yëpp jullee si ci jàkka ji timis imam bi ne wala dolliin rek jàkka ji diir amiin ñu pare rek benn paa génne pistolet tëw tëw ndeysaan xeex bi commencé ñu xeex xeex bu métti ñu nag jeunes yi ne fa nekk ñu ne ba ngeen ñëw gee yéen ba ngeen ñëw gee gee jot ñu ñëw mais waa tour bi moom am na ñu ñibbi mais ñu ñu dëkk ci koñ bi ñu ñëw bi ñu ñëwee ñu ne ah da ngeen a bëgg a indi histoire ñëwaat ngeen ci suba sa ñu xëy dem police dem préfecture préfecture bii bu Guédiawaye bi préfet daal di woo paa bi sunu paa bi ñun ñu bëgg a dem paa bi ne leen déedéet bu kenn dem toog leen man lañ woo bàyyi leen man parce que nee nañ man maay man maay seen chef leen bàyyi leen ma dem wii ci paa bi mu ñëwee mu fekk fa imaam yi ak paa yi koñ bi ndeysaan papaay kii koñ boobu la juddoo kii ni papaam koñ boobu la juddoo ndeysaan préfet mu ne im yow yéen imam lan moo leen métti mu ne ñu ne kii day indi ay xale ci koñ bi ñi ñuy saaga di yàq di def lu leen neex ñun ñoo moom suñu jàkk dañu bëgg ñu buñ fa ñëwati dañ fay jul nekk di yuux di sawaru lu ne lu bon ñu wax après ñu ne sunu paa bi waaw léegi yow waxal mu ne man li ñuy def hadis la yonent bi moo ko wax mu ne préfet soo jiite woon léegi léegi fii gée fii fii ci biir ci biir saal bi nga jiite ñu gée soo waxee wala daalin man damay wax amin mu ne amin bi fépp laa koy wax du ci jàkka jooju rek du ci benn fu ma dem rek bu imaam ne wala daalin su ma ko déggee damay wax amin mu ne yow léegi-léegi boo ñu jiite woon sax boo waxee wala daalin ma dégg ko damay wax amin kon amin bi jaamu yàlla la waa loolu li ma ci bëgg wax mooy jaamu yàlla kenn bu mu la ko teree def waaye boo koy def def ko def bu rafet bul def benn jaamu yàlla ngir nit mer kon dootu am tiyaaba parce que sa yéene mooy am na yeneen mbokk yoo xam ne comme lii ma ma leen di wax ne ci amin dañoo dégg jàkka jee paa bi day bañ amin rek ñetti mbokk ñu ne nan dem ah ñu dañu soof quoi xaaral nan dem ñu ñoo élimaane war ñoo amin ah yuuxu yooyu ñu pare rek bàyyi na bàyyi leen tooñ bàyyi leen tooñ bàyyi leen tooñ xam nga yooyu tamit jaaduwul daal waaye bul dégg ne lii am na ko bëggul rek nga ne dama koy def waaye kii dafa soof lii di diine déedéet bul def dara pour kenn mer yow booy def da ngay def ngir nga am tiyaaba kon mbokk jullit yi ci gàttal loolu laa doon tënk insha allah leneen li ñu mottali ko ci question yi insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu waaw waaw waaw waaw insha allah